ba tey ñu ngi nekkoon ak yéen ci dundu alxalifa arrachid mu nekk abu bakrin siddiq radiallahu taala anhu wa ardah mbokk yi ñëwoon nañu ak yéen ba ci ni nga xamante ne noonu la doon joxe alalam ci yoonu yàlla subhanahu wa taala di joxe alalam ci yoonu yàlla te fekk wutu ca lenn lu dul ngërmandey borom bi daan joxe alalam ci yoonu yàlla wuti ci aw tur wuti ci wuti wuti ci ñu ñu maanaam wutul ci ñu màggal ko wuti ci li nga xamante ne moom mooy ñu réyal ko wuti ci ñu benn yoon ñu ñu wax aw turam ci jotaay waaye lamu doon def da doon def ngir jëmmi borom bi ndax xam na ne borom bi subhanahu wa taala mooy borom payte moo koy fay euh, waaja dafa am kilifa gu baax gu mu mës a yónnee li nga xamante ne mooy ab cadeau ba mu ko yónnee cadeau bi mu bind benn lettre bind ne euh, cadeau bi mi ngi bàyyeekoo ci diw doomu diw bàyyeekoo ci dëkk sàngam jëm ci diw doomu diw ci dëkk sàngam loolu mu def ko ci biir cadeau bi mu jëlaat encore ci kaw cadeau bi mu bindaat fa lu mel noonooti dugal ko ci benn emballage encore bindati ci lu mel noonu bindati beneen leetar encore joxati ko ki mu koy ki koy yóbbu mu ne ko boo demee joxal ma ko waa ba nga xamante ne mbir ma egg na ca loxol waa ji waa ji jàng leetar ba daal dina ko ah yal na ko yàlla fay ba mu jëlee kado bi xool embalage bi mu fekk ca loola la comme la mu def ca leetar ba mu ubbi kii bi fekk ca lu mel noona mu xool cadeau bu fekk mi ngi ko ko ci tafal encore waa ji ne ki ko indiloon cadeau bi boo demee nee ko alam yaalam bi anna allaha yara xanaa xamul ne yàlla gis na xanaa xamul ne yàlla gis na loolu muy wane mooy li muy def nii bu nekkoon ne jëmmi yàlla dong dong dong dong la ci soxla kon yii yëpp jaru ko ci yii yëpp jaru ko ci bëri na koy def ba pare na di diw day fakk jëf diw day fakk jëf wala day sakk jëf ngir na li ma koy defal feeñul du wax bi maanaam li ma koy defal waa ji fa dem ci boroom xam-xam bi ne ko man de sama waa famille balaa ñoo ñëw ci man rek seeni bët daa xonq mu ne ko santal yàlla bi nga nekkee sondeel ci courant bu coupé bi nga nekkee sondeel ci courant bu coupé mu ne ko loolu mooy lan mu ko saa bu courant coupé xel yépp dem ci sondeel saa bu courant coupé xel yépp dem ci sondeel kon santal yàlla bi nga nekkee sondeel ci courant bu coupé kon fu fu ñu jàqee wala ñu tiit ñu daw ñëw ci yow kon santal yàlla ci lu mel noonu kon ahbaab yi tay ji nak sunu darsub tay mi ngi jëm ci zuhduhu fi dunya zuhduhu fi dunya moy ak dëddoomu àdduna moom Aboubacar ku dedd won aduna la dëddu aduna nak ñu bari dañ koy wax waye fekk xamuñu lii deug degg dëddu àdduna dëggu àdduna dëddu àdduna firiwul sol ay sagar firiwul bi maana sol ay sagar di lek ay xobi garab dëddu àdduna firiwul bañ a dëkk ak nit ñi dem dëkk ci àll ba dëddu àdduna firiwul bi maanaa bañ a nelaw wala bañ a lekk lu baax wala bañ a takk soxna dëddu àdduna firiwul bañ a liggéey ngir jëriñ sa bopp waaye jëriñ sa sam réew jëriñ li nga xamante mooy mbindaafu ni yàlla yi firiwul loolu dëddu àdduna mbir la moo xamante ne comme wakiirlu ci yàlla lay nekk mbir la moo xamante ne xol moo koy def waye du li nga xamantene day fenti li nga xamantene mom moy ak colka wala muy fenti li nga xamantene mom moy ay jëf kon zayd ibn arqam moy nettali muné muné anna aba bakrin istasqa fa utiya bi inain fihi maun wa asal ñu ne aboubacar dafa am benn bis bis la bo xam ne dafa tàng mu mar lol mu dadi ne nandal leen ma mu dadi ne nandal leen ma bi maanaa dama mar damaa mar damaa bëgg ngeen may ma naan foofu ñu daal di dem njaral ko ndab loo xamante ne nii ndab li ndox la ak lem ñu daal di koy jëlal benn ndab karaaf boo xamante ne dañ cee def ndox ak lem daal di koy njar ñun fii xëy na xamuñu njar moomu njaram lem ak ak ak ndox waaw waaye Aboubacar loolu lañ ko defal ndox lañ ko defal ak lem ñu daal di ko koy indil biñ ko ko indilee xoolal ndox ni mu neexee waaye xoolal lem buñ ko ca boolee ni muy mel. Aboubacar bi mu jëlee pot bi jëmee ko ci gémmiñam rek foofu mu daal di jooy jël pot bi jëmee ko ci gémmiñam mu daal jooy jooy ba jooyloo ñi toogoon ci wetam jooy ba jooyloo ñi toogoon ci wetam mu toog tuuti daal di noppi ba mu noppee ñoom noppi ñu ñu continuer di jooy mu continuer moom it Aboubacar di jooy ba ñu yaakaar ne ñoom du ñu mën a laaj duñ ko mën a laaj li ñu ko bëgg a laaj foofu mu daal fomp kanamam mel ne ku xamoon mu xiqi daal di fomp kanamam daal di toogaat defaraatu toogaayam foofu gars yi daal di na ma hajaka ala al buka lan moo la lan mooy li la ci ay joy fofu aboubacar daal di len di tontu mu ne kuntu maa annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وجعل يدفع عنه شيئا ويقول إليك عني إليك عني ولم أرى معه أحد فقلت يا رسول الله أراك تدفع عنك شيئا ولا أرى معك أحدا مم أبو بكر مني دفع أم بن بس بكو غاينة لن مولا بوستي جوي جوي يمتي بني جوي لو نمني من لين دفع أمبس ما توقن دخو ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم نانا مجيس ينتبي دي أم لموي جنخ دي أم لموي بوس دي أم لموي بمخ أك نياري لخم يتدير معنى ينتبي توقن ميا غريك مو أم لخم موي بوس أك لخي موي بوس أك لخي مم ينتبي سلام دي بمخ نانو منان مم ينتبي سلام سوري ما سوري ما سوري ما موي إليك عني إليك عني إليك عني sori ma sori ma sori ma neena te man lima ma jaaxal mooy maak yonent bi ñoo toogandoo gisuma kenn ku nekk fofu ku ñu ñettel ku dul yàlla subhanahu wa taala te yonent baa ngi am lu muy puus ci kanamam kon yonent bi am na lu mu gis lu ma gisul neena fofa yonent bi mi ngi puus ak di jëñax lool ak ay loxom yu tedd naan ko sori ma sori ma neena na ko yow yonent bi yow yonent bi yàlla bi lee man dama la gis ngay jëñ ak di puus ben mbir te man gisuma fi kenn ku ñettel ku dul yàlla subhanahu wa taala lan ngay puus lan ngay ba max boobu ba legi nan ko sori ma sori ma yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko haadihi dunya tamathalat li bima fiha fiiha mu ne ko àdduna mii de mo ñëw bi maanaa daadi melni ku soppeku jigen wala àdduna mii de moo ñëw daal di mel ni ki ku soppali ku benn mbir taxaw sama kanam bëgg maa jommal waaw àdduna mii moo ñëw haadihi dunia tamasalat li moo ñëw bi maanaa soppeeku bi maanaa am jëmmi leneen lu mu yor bi maanaa ñëw taxaw sama kanam nag ànd ak li nekk ci biiram àdduna nguur àdduna ak taar ay jigéenam àdduna ay xaleem aduna ak li nga xamante moom mooy ay ay darajaam aduna ak li nekk ci biir aduna yépp mi ngi nii taxaw sama kanam tey mel ni ki loo xam ne dafa ñëw pour bewloo ma dafa ñëw pour fëkk ma loolu nag bi mu ñëwee manaan ko bi maanaam yéen tamit ne ko ilayki anni sori ma sori ma nee na fatanaxat nee na foofu mu daal di booru bi maanaam aduna daal di demee côté bi ko yéen tamit ne ko puus ma mu daal di demee côté waaw léegi nak bi aduna démé côté lan lay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom aduna muneko amma wallahi la inin falatta minni laa yanfalitu minni man ba'dak muneko yow Muhammad maa ngi giñ sama sama borom yàlla wallah waaw xoola seytaane xoola àdduna àddunaa ngi nii taxaw di waat waaye buy waat fan lay waat day waat ci borom bi subhanahu wa taala kon nit ki jullit bi bu dee day waat ci yàlla subhanahu wa taala te mu paree mu noppi amul jëmm ju rëy sa kanam ba nga kay waat amul kenn koo xamante war naa rëy ci sa kanam ba ngay waat ci moom yonent bi sa sallam ak màggaay bi mu am ak daraja bi mu am jibril ak daraja bi mu am ci biir malaaka yi asamaan ak bind bi ko yàlla bind suuf ak géej li leen yàlla subhanahu wa taala jagleel ci ab réyaay li leen yàlla jagleel ci ay kéemaan kenn du waat ci yii yépp ci kan la ñuy waat dañuy waat ci ki nga xamante mooy borom asamaan ak suuf dañuy waat ci ki nga xamantene mom mom moom sa bu ko nexé jël bakan kon koku moy allah subhanahu wa taala motax aduna dal dine amma wallah muneko a ma ngi waat ci yàlla yow muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bo ma recc de ñi ñëw sa ginnaw duñu ma rëcc lool la aduna wax yonent bi aduna taxaw waat ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neko yow muhammad bu nekké na xëcc naa la wala jéem naa la fëkk nga rëcc ma nga rëcc ma ñëw sa ginnaaw duñu ma rëcc waaw foofu Aboubacar nee na loolu moom ma jooyloo nee na fa xachitu an takuna qad laxiqat fa daaka alladi abkaani mu ne ma ragal ne aduna mbaa dabu ma ma ragal mbaa aduna dabu ma mu ne loolu mooy li ma jooyloo waa mbokk yi mbokki jullit yi mbokk yi ci yàlla Aboubacar bu dee jooy aduna mbaa àdduna gabu ko ak Aboubacar ni mu meloon ak Aboubacar ragal yàlla gi nekkoon ci moom ak Aboubacar bi maanaam li nga xamante ne mooy woyefte gi nekkoon ci moom bu dee jooy mbaa àdduna dabu ko mbokk yi ana ñun tey kon ñun ñëw gën a yey ci jooy kon loole nga xamante ne moom mooy àdduna ndax àdduna ubbeeku na suñu kanam àdduna ubbeeku na suñu kanam ci ay bërëb ubbeeku na suñu kanam ci ay bunt ubbeeku na suñu kanam ci ay mbir yu bëree bëri mbaa ñun àdduna fokkuñu mbaa ñun bokkuñu ci jaami àdduna mbaa ñun bokkuñu ci jaami àdduna waaw ay nit ñoo xamante ne soo leen joxee ñu gërëm la boo leen joxul ñu xarab la boo amee bi maanaa wonoo leen bi maanaa ñu xas la soo amee bi maanaa bokk ñoom kenn du la gërëm loole ci boppam tey ñu ngi ci jamono jooju ñu ngi ci jamono joo xamante ne tey alalu àdduna tey jaral na nit fa ay waajuram alalu àdduna jaral na nit tey faat li nga xamante ne mooy soxnaam alalu àdduna jaral na nit tey faat li nga xamante ne moom mooy doomam alalu àdduna jaral na ko faat ay bakkan mbokki jullit bu ñu xoolee tey jamono ji nga gis tey jamono joo xamante ne tey alalu àdduna jaral na nit góor góor ci boppam nga gis mu dem ànd ak moroomu góoram di jëflanteeg moom ni góor nit nit jëkkër a jabar jëflante nga gis jigéen ànd ak jigéen moroomam bi maanaam di jëflante comme ni borom kër bi maanaam ni nga xamante ne borom kër bi maanaam gu góor ak borom kër gu jigéen gi lañuy ñuy jëflante nga gis koo xamante ne ndaw soo xamante ne tey bi maanaam bu jëloon baaraamam jëmale ko ci fi nga xamante ne moom mooy payam bu ko génnee foofa jëme ko ci bakkanam boo moytul am xelam wëlbatiku mu wàccu kookee nga gis tey mu dem bay jaay loolee ci moom bi maanaam ngir am lu mu dundee kon mbokk yi musiba ngoog arab yi dañ da wax naan tajuul xurra wala taakulu min sadiha fa kayfa idan bi farjiha naudu billah kon mbokki jullit yi aboubacar jooy na aduna ngir ragal aduna mbaa aduna dabu ko ngir ragal mbaa aduna bewlawu ko ngir ragal mbaa aduna fukk ko kon nañu moytu li nga xamante ne moom mooy aduna te lu ñuy def ñu def ko ngir alaxira ndax loolu moom mooy li nga xamante ne moo tax ñu sàkkuñu li tax ñu sàkk ñu moom mooy àllaaxira li tax ñu sàkk ñu mooy àllaaxira àdduna dañ ñu fee indi rek ngir examiner ñu àdduna dañ ñu fee indi ngir nattuñu da ngay gis suñu borom li yabluwakum ayyukum ahsanu amala yàlla di leen fee indi ngir nattu leen ana kan mooy kay rafetal ay jëfam kon aduna mii de nañu moytu àdduna ndax àdduna ci boppam ab waraakoon la nañu moytu àdduna ndax aduna li nga xamante ne moom la ñuy won kanam gi mu ñuy won ak kanam gamu andal ak kanam ga nga xamante moo nekk ci moom dëggantaan du mës a feeñ suñu kanam aduna ndoxam jinne la li nga xamante ne boo doon dox ci tëli ba mu yàgg si digg bëccëg naaj bu tàng jër da ngay seen sa kanam lu ki am ndox boo dawee ba egsi doo fa fekk dara waaw doo fa fekk dara loolu la di wax nan ka sarabim bi qiia waaw mu mel ki li wax ci olof lolu mom moy ndoxam jinne waaw yéen ñi jàng tubaab yéenay wax ne mirage yalla ñu yàlla defal jàmm yalla ñu yàlla musal ci aduna di ñu fukk mbokki julli ci kon suñu joggé ci li nga xamantene mom moy mooy Aboubacar moomu ak ni nga xamantene non la dëddo won aduna ñu jëlal leen tuuti fukkal leen tuuti ci ay waaraateem Aboubacar dina daan warate ndax nak warate moy li dundal xol warate moy li dundal xol moytul bokku ci ñi nga xam dañuy wax ne man sama xol dafa tul ci ay warate sama xol dafa blende ci warate lolu musiba la waaw ndax ki nga xamante mom la warate dul jëriñ kookee suñu borom yàlla su da ko al ashqa waye ki warate di jëriñ koku mom moy ki suñu borom yàlla subhanahu wa taala sop motax fa dhakkir in nafaati dhikra sayadhakkaru man ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى كن وارات كمو يجرين موي كيغا خامتيني موم لا يالا ديفال خول بو نويال ن يالا بولي سي ньоญو waye كم دول جرين موي كيغا خامتيني موي كو توسكري كو تروخ كيغا خامتيني موي كي تخيدي ن يالا ديفال جام احبابي ا آه، كون خول ليكوي ناتال تي ديكو دوندال موي واراتي مو تخون ابو بكر بوكون ني سي اي واراتي مي يمو دون وار او نيتم ya mu doon waar ay saxaaba ya mu doon waar ña mu jamonoon teel da daan taxaw yenn saa yi ci ko minbar mu daal di ne ayna alwadda ayna alwaddaau alxasanatu wujuhuhum almucjabuun almucjabuuna bi shanihim ayna almuluku alladina banaw almadaa'in wa xassanuuha bilxitaan ayna alladina kaanuu yuctuuna algalabata fi mawatini alxarb qad tadacdaca bihim aldahar فأصبحوا في ظلمات القبور الوحى الوحى النجاء النجاء أبو بكر بن وحنان أنا برم خر كرم يتاروي أنا نينا خمنتنا أي خر كرم يتارو لن يريوان أنا نينا خمنتنا دانيو ستون بغا خمنتنا سوف داول تقشي نيوم أنا نينا خمنتنا دانيو سيفيليزي وون أنا نينا خمنتنا نيوم دانيو نيكون أي دي نيو خمنتنا أه دكون تتاخ يكوريا ana ñi nga xamante ne ñu ngi yore woon oto yu luxueux ana ñi nga xamante ne ñu ngi yore woon bi maanaam li nga xamante ne mooy soxna yu taaru ya ñu ngi yore woon doom yu taaru ya nga xamante ne foo làmban seeni seeni gafaka nga fekk ci li nga xamante ne mooy alal ju bëri waaw ñooñu nga xamante ne tey demoon nañu ba yéemu ci seenuk ndaw yéemu ci seenu taar yéemu ci seenu am-am mu ne ana ñooña ana buur yi ana buur yi nga xamante ne ñoo tabaxoon dëkk yi ana buur yi nga xamante ne ñoo tabaxoon dëkk yi ana ñi nga xamante ne tey ñoo tabaxoon dëkk yi Dakar gi ana ñi ko tabaxoon tey nga génn tey si dëkk bi nga yem ci ay bâtiment yu mag yoo xamante ne nii da naan ana ki tabaxoon lii ñoo la ki tabaxoon lii si jamonoom moo fi ëppoon alal waaw ay holding yoo xamante ne nii ay building yoo xamante ne da ngay ñëw nga laajte ñu ne la building bii ki ko tabaxoon moo ëppoon jamono si jamonoom moo fi ëppoon alal ana nga xool tey building boobu ak na mu kawee waaye boo xoolee moom ko ko tabaxoon anamu ñu ne la mi ngi ci biir suuf nga gis mbërëm làmb moo xamante ne tànkam bi maanaam ginnaawam mastalaal suuf mbërëm làmb moomu tey boo laajtee ñu ne la diw la waaye tey mi ngi ci biir suuf nga dégg ñu la boroom xam-xam sàngam boroom xam-xam la woon boo xamante ne fànn boo ko indilaan ci fànni xam-xam yi ci fànni téere yi nga fekk mu nekk ca géej anamu tey ñu ne la mi ngi ci biir suuf nga fekk ñoo xamantene ni ay ndaw lañu woon ñoo xamantene seen digg doole amoonu taar amoon mbolo amoon li nga xamantene mom moy euh ginnaw waye ak lolu lépp tay ñu ngi ci bir suuf nga fekkon ko xamantene daan joylo nit ñi ak batam bu neex mo xam ci alquran mo xam ci ay way ay tiaxan ana mu tay ñu ne mi ngi ci bir suuf kon mbax ga julli gu bari ga ak koor gu bari ga ak joxe azaka ya jàng alquran ya terewuladee waye sàngara si cigarette si ak dorog yi ak jëf yu bon yi loolu it terewuladee de sa bu ñewé rek de la tuddu moy ki nga xamantene buy ñëw du jaar ci buntu du jaar ci fenêtre ragalul buur yërëmul la amul kenn ko xamantene wek na la amul kenn ko xamantene tit na la ndax nak ki nga xamantene moko yebal moy suñu borom yàlla subhanahu wa taala قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم kon mbokk yi aw bakar loolu wax mu ne ana borom xar kanam yooyu ana ñooñu nga xam dañoo yéemu woon ci seen i mbir ana buur yooyu nga xam ne ñoo tabaxoon moo ñoo tabaxoon dëkk yi waaw tey kër gi nga samp tey est ce que xam nga ñu fi jaaroon est ce que xam nga ñan ñoo fi mës a da ngay ñëw nga deman ci àll laa dëkk àll ba ma kenn mësu faa dëkk ah kay am ñu fa dëkkoon yow yaa ko xamul xëy na yaa fekkewul seen mbir yàlla nga koy wax ci alquran wa sakantum fi masakini ladina zalamu anfusahum wa tabayyana lahum وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال كون بروم بي سبحانه وتعالى بول خم سنغال جي يان خيت ньо في نديك جار بول خم بمعنى غامبي غلي يان خيت ньо في نديك جار بول خم فنن اك فنن يان خيت ньо في نديك جار نيافا جارو نيب بمعنى تاي بولن بروم بي ديلو سي واتون تاي غي يمو يالا انا بور يوي انا بور ييغا خامتو ньо في نيكون ديم انا بور ييغا دان ديغي نالا اي دامل تاي ana buur yi nga xamante ne ñoom nga daan dégg ñu naan la bi maanaam diw bi maanaam moo nekkoon nangam diw moo doon def nangam diw moo doon def nangam waaw daan def ay tata maanaam daan tabax ay tata tabax ay tata ay tata muy ay forteresse yoo xamante ne dañ ko daan def cette montagne seet montagne bu rëy boo xamante ne bu kawe bu naqaree yéeg ba pare nga ñëwati encore defati ab miir bu kawe ci kaw montagne yooyee loolu lépp ngir tatawu foofa waaye ngir di préparer ay noon yoo xamante ne bu ñu ñëwee duñ la mën a bett nga mën a jëflanteeg ñoom ndax yaa leen di tiim ca kaw ñooñu nga xamante ne ñoo defoon loola buur yooyu ana ñooñu ana ñooñu nga xamante ne ku nu masaana ku nu masaana ku nu masaana tëkku rek ku nu masaana tëkku dootoo nelawati ana buur yooyu nga xamante ku nu mas a xeexal ku nu mas a xeexal duma la ku nu mas a xeexal duma la doy na rek ñu jox la ne Xaalid ibn Walid nga xamante ne xoolal Xaalid ibn Walid meloon nga xamantene xare bu mu mës a xare bu mu mës a ndam xare bu mu mës a ndam abu ubayda amir al jarrah bin ibn al hasana amr ibn al as groupe bobu ya ikrama ibn abi jahl groupe bobu nga xamantene ay jambar lañ won yo xamantene bu ñuy wax ci olof nan jàmbaar yi fàkk tëdd ñii la won ñooñu ana ñu tay suuf lek na leen yagna suuf lek na leen yagna waaw mune nak qad tadha'dha bihim dahr bimaana تي جامونو بمعنى maanaa teg سي سوف فاصبحوا في ظلمات القبور تي جي نيغي نيك تي سي لندم قبر يا تي جي نيغي نيك تي سي بير لندم سوف لندم سوف biir وور نك بو نيك اك مباخ لا وون بو نيك اك مباخ لا وون سونو بوروم يالا سبحانه وتعالى ميم بو suñu borom yàlla بير سوف دا même ياكل سا قبر واي دا suuf فا دافال ليغا خامتنا موم موي اي خيول nga nek ci ay ajana nga nek ci ay xewali ajana yo xamantene da nga fay tëdd dina law nelawi set waye bu nekké nak bi maanaam safan la won bi maanaam da nga fa nekk ci lendeum nekk fa ci coono yo xamantene la ya'lamuhu illa allah kon mbokk julli ci ki nga xamantene mom moy Abu Bakr as siddiq loolu la doon fatali gaay yi mu ne gis ngeen kon nak gawtu len gawtu len fexel len ngeen rawel sen bop ngeen rawale sen bop fexel leen fexe leen ngeen rawale ji sen bop waye fexel len ngeen rawale sen bop fan lañu ñuy suñu bop mbokk yi ci fan lañu jaar pour rawale suñu bop fini jaar pour rawale suñu bop moy ñaari mbir yi moy gëm yàlla subhanahu wa taala ragal ko ndax ñaar yoyu moy tax ñu bokku ci allah moy tax ñu bokku ci wali yàlla yi ñi yàlla tan ci bir tané fami def leen ay waliyum ci ñaar yi dong lañ koy mëna amé moy ñu gëm yàlla ragal yàlla subhanahu wa taala sa bo gëmé yàlla ragal yàlla ci ngay nekké wali yàlla subhanahu wa taala bu boba doto tiit doto jàq doto tit fa nga jëm doto jàqati ci li ngay bàyyi sa ginnaw ndax borom bi subhanahu wa taala mo lay garantie fi ak fële mo lay garantie fi ak fële ndax borom bi mo wax ci alquran ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum albushra fi lxayaati addunia wa fi l axira kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xamante ne moo garanti garanti moom moo ñu garanti képp koo xamante ne tey bi maanaam am na benn société tey boo xamante ne dafa taxaw ne la maa garanti si nangam danga naan sama xel dal na fa kay fa nag ci ki nga xamante ne moom mooy allamul guyub aalimul gaybi wa shahada moom yàlla subhanahu wa taala bu la garanti kon ahbab yi ah, yi nga xamante ne ñoon doon déglu fii ci Islam TV doon doon seetaan fii ci Islam TV ñu ngi leen di sant leen di gërëm di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu wat jàmmi aduna defal ñu jàmmi al-akhirah di sante ki nga xamantene mom moy euh cheikh nu teeti Abu Salima ci réalisation bi waye di sante ki nga xamantene moy abou Abu ci li nga xamantene mom moy image yi di sante mboolem ñi nga xamantene ñom ñoy jappalante ak ñom di ñaan yàlla subhanahu wa taala yalla ñu yàlla defal li nga xamantene mom moy tawfiq ak taysir yomb na suñu borom yalla ñu ko yàlla defal wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته